kenn ku nekk tey saa borom defal na la xéewal waaye nag man lam yaskuru la laa yaskuru laa boo santul nit rek doo sant yàlla te tey képp ku fi teew bu fekkee suñu borom defal la xéewal xéewal googu boo santul sëñ Abdou Samad Mbàkke yàlla gradé wu ko ndax bu du toon ak jëmmam ji ñun duñ fi dajaloo tey kon bu ñu fi dajaloo tey di sant sëñ Touba togg ay benn jox ko jaamu yàlla yi di waxtaan ci yàlla loolu mbaaxam gee tax kon nag ñu koy ñaanal lool ba lim bu ko defee maanaam dañuy jëmale suñu kàddu rek ci li waral lii ndax dañ ne ko war mburu tudd dëkk sabab bi tax tey jaamu yàlla yëpp teew fi mooy dañoo wuy si xaatimatul munaajaati ci ziar gi nga xamante ne dañ koo oote ñun sëriñ bi fépp la féete ndax bañ xamee ni mënaluñ dara suñu bopp ci lañ dem sàndeeku ne menteng ci jëmmam ji moom it moom fulla gu toll ni kalaame ñoog boppam kalaame wu ñoog aljana kalaame wu ñoog safara jëmm yàlla ji la ñu kalaamel ngir kat sëriñ Tuubaa muridullaahi la oote ootewul jàpp kenn yóbbu aljana wala woote luy musale sawara lam oote mooy la yóbbee direct bi ci jëmmi yàlla ji loolee nga xamante ni sëñ Bamba ci la nekkoon sos yoonam ji tuddee ko muridullahi Cheikh Ibrahima Fall ñëw xam la Cheikh Rafal euh, la sëñ Bamba làkkoon mu jaayante ba làkkarti loolu wane yoon wa kenn ku nekk jaar fa bu fekkente ni dañoo ñëwaat toppaat suñuy sëriñ yaakaar leen war nañ xencu mboor moomu loolu rek ay tax ñu raw ndax sëriñ bambakat moo bindoon ci masaalikul jinaan yi wayn takkun mubtadiyan fa naf yi olaamaha tuxsimu yaa ohayu bika moo ne ndéem da nga di aji tàmbali koo xam ne yaa ngi soogu soogu mu ne neel wax laa ilaha illallah fépp foo nekk te ñun sëñ samat si loolu lañ saxal ndax Baay Faal symbole mooy laa ilaha illallah waaye sëñ bi yamu ca dane wal murtahi mutasiru bi allah képp ku ci soobu te muy dëgg bés moo demee ba yegg ba jeex tàkk ci jëmmi yàlla ja nee na dootoo dàq dara dangay ngay saxal jëmmi yàlla ja rek lu tax lépp doomu aadama mën a xool ci kaw suuf rek suñu borom dëxëñ na ci mbóot dëxëñ ci secret goo xamoon ne daa dafa ci namm doomu aadama bi jàng pour xam moo tax suñu borom di la wax ne sa nuurihimu ayatina fi afaaxi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu alhaq mu ne sa nuurihimu sama leer man yàlla ayatina fi afaaxi danaa ko def muy kawteef ci mbooleem goxi suufi wa fi anfusihim ba def ko ci seen bopp mu ne bay hatta yatabayyana annahu alhaq ba ngeen xam ni kat man yàlla maay dëgg kon nag raison bi taxoon suñu borom wàccee ñu fii mooy pour ñu jaamu ko jaamu ko ñu teg ko ci kaw sellal te dëggal lii rek a taxoon kon bu ñu toogee ba jébbalu ci sëriñ bi jaayanteeg moom di ko liggéeyal dem ba yëg ci suñu bopp ak manqué manqué wala ñu yëg ne kat war nañoo dollee tax ñu taxawal ba sub ziar bii di ko def kon nag loolu ak cant la dafa di kay mënuñu koo ñàkk biral mbooloo mi ngir kat doomu aadama lépp lool suñu borom defal ci kaw suuf boo ko santul rek ay xarab da ciy topp te nag ñun ay Baay Faal lañ liñ njëkk a def mooy lañ dañoo su ko jébbalu jébbalu suñu borom moo ko wax ci alxuraan képp ku faatu te jébbalu woo da ngaa dee ci ak réer kon nag jébbalu mooy lan li nga mënul ci sa bopp nga dem jox sa bopp sëriñ bu mat sëriñ mu mënal la ko ngir kat doomu aadama bu tawatee day dem jébbal yaramam bi médecin mu xotti ko jaarale ko fu ko neex te lu mu ko digal mu def ko lu mu ko tere mu bàyyi ngir muccal yaramam bi te yaram bi loo ko toppatoo toppatoo bés boo deewee bañ dugal ko ci suuf sax yi nañ ko lekk ruux bi nga xamante ne leeru yàlla rek la waroon dundee te taxoon suñu borom wàccee la fi léegi nooy def moom looloo tax nga war a dem wuti sëriñ kon képp kuy dox ci kaw suuf rek am sëriñ dalaa war ndax lan moo tax suñ borom daf ñoo wax ci alxuraan ci ali imran ne yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wala tamuutunna illaa wa antum muslimuuna mu ne waxtasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu loolu mooy lii su ko jébbalu njëkk boo jébbaloo jaayanteeg sa seriñ ba noppi tege ci aw yoon kon nag maanaam euh, kàddu yooyu dafa di loo xamante ne mënuñu koo ñàkk biral ngir kat jëmmi ak Baay Faal li muy dund te nga xamante ne moo ko fees féetee ko fépp buñ toogee ci barab yi foog ñu koy leeral kon nag suñu sant ci sëñ bi mooy li mu def ci ñun te muy dëgg fépp fuñ toog dañ koy biral leeral ko ngir kat jëmmi loo rek a ñu fi bàyyi kon nag maanaam kaddu gàtt dañ koy tënk rek ngir jëmmi amaana bëggoon nañ fee leeral leneen ak leneen waaye ñoom seen naa alin bu ñu ñëwee dana am luñ junj leeral ko bu defee maanaam dañuy wàccee kaddu gi rek euh, jébbal ko sëñ xaadim maanaam mu jox ñi ci topp ñu daal di wéyal euh, ñu ngi jéggalu nag amoon nañ yéene waxtaan fi lu yaatu ndax liñ fi indi teg ko sax daanaka matalewuñ ko temps bi moo ko mayewul daal sëriñ Touba gi nga xam ni euh, ñoom ñoo fi teew doon ay mbokki sëriñ bi te yaakaar naa ne ku miin jotaay bi xam ni miin nga seen xar kanam kon Baye Cheikh Mbacke ibnu sëñ Modou Faty Khary teew na fi soxna aji maam su bu sëñ Abdou samat te kenn ku ne xam na ni mooy kilifa jotaay bi moom tamit teew na fi ñu ngi koy ñaanal yàlla suñu borom guddal fanam lool soxna Fatou Fall Mbacke mu sëriñ Cheikh moom tamit teew na fi soxna maam Issa Mbàkke mu sëriñ Moustapha moom tamit teew na fi soxna maam Aram Mbàkke moom tamit teew na fi sëriñ Cheikh mu sëriñ Mahmadan moom tamit teew na fi sëriñ Cheikh mu sëriñ Modou Fati Xëri moom tamit yebal yebal na fi délégation bu am solo te sëriñ Fàllu mu sëriñ Modou Fati Xëri jiite ko ànd kook njabootu sëriñ Modou Fati Xëri gépp ak njabootu sëriñ Cheikh kon ñoom tamit ñu ngi leen di dalal di leen wax ni ñëw nañ ci bis bi nga xam ne ñoo ko moomal seen bopp ñu ngi leen di sant bu baax xam naa kon sëñ Ibra ñu yemandi foofu daal di dugal waaw daal di dugal animation su ko defee ma desuwaat ci topp léegi léegi ginnaaw bu ñu leen saytoo ba noppi kon damay jox euh, sëriñ Abdou Karim su ko defee mu ñëw barkeelu rek ci lu tënk rek. auzu billaahi mina saytaani rajiim wa inni u'iizuhaa bika wa zurriyyatahaa mina saytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun ashaabul jannati hum fiihaa xaaliduun ilayka yaa xayral bariyati salaam xadiimika llazii kafaytal malaam ilayka ya xayra albariyati salaam xadimika allasi kafaytul malaam salla alayka abadan ma salaam ilaali wal ashaabi rabbuna salaam خص مقاما دونه كل مقام يا نور كل حابد سما وخام أنت الذي أخرجنا من الظلام بك لنور من عباك بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك صهيا ساتنام أنت النبي والرسول والإمام بك انقياد صالحين بسمام لك لدى ربي الورى كل مرام لك به يا سيدي أفقرام جاد لنا تعالى منام بك فأنت سيدي خير لنا نويت سره عليك كلها وكل سهر سهر بابدها نويت شكره عليك بخلام وخيرها يا فجواب الكلام هديتي خسكر من بالانسرام يا خائد لي من إلهك المرام تبت لربي سائرا ناقصا النسان لك وخمر عبرت باللسان محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله رسول الله rasulillah ku sopp sayyiduna Muhammad rasulillah man sakka sakka fi kaw min hubbillah Muhammadin man sakka fi kaw min hubbillah Muhammadin عسى رسول الله ما لم يحلمي إلا الذي خاطبه بكلمي محمد فرد يفوق الأصياء وفاق جمع الوحدة يا مهنيا من صنع صنعتها مثل الورى فهو هم خلقه من نورا درجة المحتاج المرسلين بهدي الله درجات المرسلين رسولنا رسولنا رسولنا رسولنا رسولنا رسولنا محمد لم يدع خطوة خطوة سيدنا الخالد بالجنات جفا بها القلوسينات ولا اللعين ونفع الله لخيره وفاس منالا لم يفقه رئيس رؤساء وابدا ابليس من مؤيسا أحسى وطلعت العصيم أبدا منصرفا مصابا أن يحمدا لم ينه نحو المصافى والله ترده لخير والله لا ينتهي مدينة المنورة صنع ما صوب خير صورا أكرم الرب العزيز المدين إلى جنانه وصان الدين عدم ما بناه كل الله من جعل المختار عبد الله سبحان ربك رب العزة عما يصنع سلام على المرسلين والحمد yàlla na ñëpp am jàmm ju jërëjëf sëñ Abdou Karim njàng mi am na solo kon mbokk yi ko waxee woon léegi rek su ko defee ñu xam ni délégation officielle baa ngi nii toog dañuy daal tàmbali cérémonie bi léegi sëñ Fallou moom tam teew na ànd ak mbooleem njabootam gépp sëñ Abdou Ahad moom tamit teew na ànd ak mboolem njabootam gépp sëriñ Abdou Mbacke euh, mu bàyyi Cheikh Khady moom tamit teew na fi ñuy fàttali ni édition ren bi xam ngeen ni dañ ci rendre hommage bàyyi Cheikh Khady Mbacke kon ñu koy dollee ñaanal bu baax a baax su ko defee sëñ abdu sëriñ Ousmane tamit teew na soxna Bintu Mbacke di doom ci sëñ Mamor Mbacke Masamba moom tamit teew na soxna Soxda Mbacke teew na moom bu soxna bu sëñ Modou Faty Khary moom tamit teew na ànd ak bu am solo sëriñ Basirou Mbacke moom tamit ànd na ak bu bu am solo euh, sëñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Modou Faty moom tamit euh, doomam teewal na ko fii muy sëriñ Khadim. Euh, soxna maam Issa Mbacke bu sëñ Modou Fall xaritam teew na sëriñ Abdou Aziz euh, Fall bu sëñ Modou Moustapha Fall tamit euh, teew na fi soxna Mbacke Fall moom tamit teew fi sëriñ Cheikh Ndigal Kan ibnu soxna Issa moom tamit teew na fi waaw sëñ Cheikh Ndigal mu soxna Issa bu sëñ Massamba Mbacke teew fi sëñ Modou Kara Mbàkke moom sëñ Modou Faty Khary tamit teew na kon sëñ naa li su ko defee dangay ngay daal di ñëw rek daal di yëkkati ay kàddu waaw ñu jox bàyyi bi moom tam mu dolli ci ñeneen ci délégation bi. waaw ku déggugul sa tur mi ngi ci këyit yi daañu ko lim ndax sëñ bi dafa bëgg ñépp gis seen bopp bis bi di rafetlu lu baax délégation Serigne Cheikh Jëmb Fall sëñ Abdou Aziz Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall ñëw na ak rakam. waaye association islamique pour servir le soufisme maam Cheikh Mbacke mi président bi moom sëriñ euh, Khadim Abba moom sëriñ Baara Mbacke ñëwoon na nag Chérif Fadel Aydara mi vice président bi incha allah ñoom ñëpp daal leen tudd Seydina Aliou. ala bi xaq alkalimati almusharafati wa nuur yaa xataa akuna min a daaxilin في حضرة القدس من يحبونك محبة زادية وتنبت بها المحبة والمعرفة في أراضي قلبي وجذبة أمطارها نور سمائك وصفاتك إن جذب بها إليه رقائهنا إن جذب الحديد للمغناطيس وينسدع فجر ليل الغيب في أفاق التنزلات إلى أنصار الأول آخرا والباطن ظاهرا يا أول يا آخر يا باطن يا ظاهر السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm di rafetlu seen teewaay di sant sunu sëriñ sunu wasila sunu sayxul murabbi di sëriñ Abdou Samane Mbacke moom suñu Modou Faty Khary nit nag boo koy mu ñëw da nga koy jox wala nga wax ko ndax boobu ba léegi gis ngeen ñu ngi def ay émission ci télé yi di waxtaane bis bi di def ay émission ci rajo yi di waxtaane bis bi kon nag bu ñu leen woowee ba ngeen ñëw li ëpp solo ci leen war a wax tey njariñ da suñu leen ko waxee ëllëg du ñu dajeek sëñ Touba du ñu dajeek Cheikh Ibrahima Fall muy lan su ngeen ñëwee nañ leen duyal jëmm yi duyal lañ ruu yi duy jëmm yi mooy lan nañ leen berndeel bu leen berndeel ba nopp lañ duy ruu yi ndax saa su ne doomu aadama mi ngi dox ci kaw suuf am na lu may fàtte nit dina sangu ba set solo fóot yéreem sol ganila parfum fekk ruugi mi ngi tilim xeeñ xuñ boo jigee guur yàlla bi mu nga koy xeeñ xetug medd lu koy waral ñàkk jëfe ndigalu yàlla gis nga nit dafa war a xam boppam ndax sëñ Tuubaa moo ni wa anzilil na fa wa anzil xayra makaana sarri wa anzil hilma makaanal jëhli wa anzil juuda makaanal buhli loolu mu waral suñu tawaay fii ci Grand Théâtre ndaxte bëgg nañ bépp bërëb boo xamante ni bii ñu ngi fay tudd lu xam ne du laa ilaha illallah bëgg nañ faa samp leeru laa ilaha illallah ndax loolu moo ñu war moo war suñu Abdou Samane Mbàkke moo war say bépp sëriñ boo xam ne ay taalibe nga lay warmaal li waral nag sëriñ si toog si kaw ñu toog ci suuf li waral màggalante Mame Moussa Ka nee na ku yàlla màggal koo màggal màgg ku yàlla fonk koo fonk àgg ku yàlla warmaal koo warmaal jiitu kuy gotti waayu yàlla leen nga juutu ku yàlla jiital ku ko jiital jiitu kuy ginnaaw leen nga gis ginnaaw far juutu nit ko nekk am nga foo jógee am foo jaar begg ci kaw begg ci suuf fii taxaw fan nga jaar a begg da ngaa jóge ci yàlla war a delluwaat ci yàlla fooy jaar ba dellu ci yàlla yàlla laa sàkk amala ngay nit nekk jàkka yàlla ci nit la dëkk bu fii an fi si kum manqué seen bopp la wax ay falaa taqilum xanaa du ngeen borom xel kon noo xamee ne yàlla mi ngi dëkk cëw seexul mu rabbi ngay àndal moo lay tarbiya tarqiya la tas si la delloo ci yàlla yow yaa ñëw sëriñ bi bàyyi ndey bàyyi bàyyi am nga ndey am nga bàyyi yow nga xëy bis bàyyi sa ndey bàyyi sa bàyyi ni ndey doyatoo ma bàyyi doyatoo ma sëriñ bi yaa ma doy dem ci bàyyi jàmm ni ko yaa lu tax wa maa xalaqtal jinna wal insa illaa liya'buduuni yàlla da laa sàkk sàkk lu dul yow lu dul nit ñu dafa leen sàkk ngeen jaamu ma ñu ko yàlla nu ñu lay jaamoo mu ne taxrifuuni dama nga xam ma xam lan taxbuduuni balaa nga may jaamu fii lam yaxrifuuni soo ma xamul fekkee fa taxbuduuni fooy jaar ba jaamu ma kon noo def ba xam yàlla ndax julli la ndax woor la ndax asaka la ndax joxe nguuru ko ndax aj màkk la mun la yaa ayyuhal lazina aamanu ittaqullaha wabtahu ilayhi wasila util wasila kon sëriñ ban njëriñ la amal taalibe yaa ñëw ci sëriñ wala ko aslamtu nafsi li wajhi llaahi jibal naa sa bopp ngir jëmmi yàlla ngay ñibbi sa kër bàyyi yóbbaale sa bopp pour da am na bopp ba fa bàyyi lu tax li wajhi llaahi nga ko wax kon diggante taalibe sëriñ laaye fa dox billahi wallahi wa taala dafa am lu xew ci jamono sëriñ Tuubaa waxoon suñu tax bi mbind dafa mel ni tey taxoon sëriñ a avertir na ñëpp artu na ñëpp sëriñ Tuubaa nee na qultu fa jiilu za zamani jaahilu xëy man tasawufin fa xayran ahmalu suñ dowaane xultu wax naa de fa jiilu mu ngay ñëw za zamaani jamono joo xam ni jaahilu dinañu réere xëy man tasawuf xam-xam tasawuf waaye su boobaa is jaahilu bi kaw nii sabilan li xudratullahi fa qaabu jiila is jaahilu réere nañ bi kaw ci nekk mu nekk sabilan yoon li xudratullahi ba jëpp yëpp yàlla ba fa xaabu perte nañ jiilaa maas waa léegi imagine leen loo xam ne ndaw lu ko réere nga ànd ak sëriñ boo xam ne fexe na ba réere woo ko kon ëllëg Sëñ Tuubaa moo ni wa asqinaa maahaa min maa'i kawsari man anamu ixtartahu min jami xalqi yàllaaw ku ne am nga sa cër sa cër fu mu nekk ci topp sëriñ mu sëriñ mu jox la ko Cheikh Ibra Fall lii la jàngale ba muy ñëw ci kër Sëñ Tuubaa Sëñ Bassirou Mbàkke nee na Cheikh Fall da ko ni ba may wëri sa baay baafa bu gisee yi laa ko wax man day bu may génn sama kër nday ak sama kër baay uti sëriñ mu àggalee laa bi mu àggalee ci yàlla taxoon a jóg Cheikh Fall mësta réer yàlla da doon jàngale ndax ku taxaw ni yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo la moom kon Cheikh Rafal mësta réer yàlla diggante Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Rafal diggante am fa nuuru jalal la ak nuuru jamal la sëriñ ma sëriñ moo fay àggale taalibe dégg ko kon nag mbokk yi lii duuf ci nag bi dafa xal ci cin li ñun li sëriñ sama ndàkk def ci ñun xam nga sëriñ bi daf ñoo yaram ñoo xamante ne ñun mënuñu taggaate ñu jaayaate boo ñëwee tey di di di kalaame benn taalibe da day nopp ba kenn ki ñëw mu taaj leen yéen ñaar ñun xamuñu taxaw di jeeyaate sëñ bi bañ koy attaqué yàlla lañ ko laaj barki Cheikh Ibrahima Fall egg ci yàlla laa ko bëgg wax mu ne teg mu ne ko dama bëgg àgg ci yàlla àgg ci yàlla moo taxut mu ne ñu sëñ Tuubaa daal da nga mu ne ko sëñ Tuubaa moo taxaw wax ci xas di sëñ Tuubaa damaa jàng masaalik man yàlla laa damay wax laa ilaaha illallaah chaque ma jàng masaalik rek bëgg sëñ Tuubaa ni fa kullu man zakaraha mutaqidaha madmunaha daxal jënde addan man maa laa waaye dina fi kullu man zakara booy sikkar laa ilaha illallah mu taqi daxal ko fa sa xol mat mun xaa damal xami sekkar ba loo ko xamee Sëriñ Tuubaa daxalal jënd di ngudu àjjana xala ëllëg waaye nag sekkar yàlla bu ñu def ci téere ñëpp xam ko moo tax mu ne naa ku bëgg ñu dajale leeru laa ilaha fasal àdduna fasa gu mu de wax wa kassunaa naa fii ci ay téere ñu la kaw ni sirri yi dafa nekk mbóot doon am xen di géej gu xóot li nekk ci ñun mënuñu koo yulli fii barki Cheikh Rafal léegi li tax suñu wax mbii ñu jox ñu kàddu ministre bu deferee ay lalam ba noppi da koy exposé ñëpp gis ko kon ñun sëñ bi ñu tarbiya moo foo ñu exposé ñu àdduna xam ñoo ñan ñu àgg ñëpp ci yàlla wasalaam jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seydina Aline jërëjëf lu jóge ci xol day jëm ci xol kàddu yi wér na dëggu na ñu ngi lay sant bu baax ci sa taxawaay yàlla yàlla yokk la ci barki sëriñ bi kon ba tey tamit ñu ngi nuyu bu baax di dalal sëriñ maam Thierno Diagne mi nga xam ne tamit xarit la ci sëriñ bi ak sëriñ Pape Fall journaliste moom tamit teew na fi sëñ Medoune Sow moom tamit bu X FM euh, ñu ngi koy sant bu baax ci taxawaay bi sëriñ naa Baara Falilou tamit teew na fi ñu ngi koy sant bu baax sëñ Abdou Aziz Fall bu sëriñ Mouhamadou Moustapha Fall tamit teew na ànd ak sëriñ Mbacke Fall ak mobilisation bu am solo soxna euh, Ndey soxna Diop di soxna sëriñ bi sëriñ Abdou Samad moom tamit teew na ànd ak wayu juróom bu jigéen ak délégation bu am solo boo xam ne mat nañ 30 car teew fii seen délégation am na solo ñu ngi leen di sant sëriñ bi nee na mi ngi lay sant bu baax a baax di la ñaanal ci barki sëriñ Touba kon soxna Ndey ñu ngi lay sant bu baax ci teewaay bi ak rafet sëriñ Abdou Mbacke mi nga xam ne tamit moom mooy parrain bi sëriñ Abdou mu bàyyi Cheikh Khady sëriñ Mbacke Sylla bu oustaz Alioune Sall mooy wax ci turam kon sëñ Mbacke mën ngaa dal di jege si mu wax ci turu sëriñ Abdou. kon ñu ngi nuyu bu baax waa kër Cheikh Issa Diène yëpp ñi nga xam ne teew nañ fi nga xam ni kenn ku ne xam ne sëriñ bi tam dafa bokk euh, ci wàllu waajuram bu jigéen dafa bokk ci waa kër Cheikh Issa waa kër Cheikh Issa Diène waa kër Cheikh Ibra Sarr Njaañ tamit ñoom ñëpp teew nañ fi ànd ak délégation bu am solo ñoom tam ñu ngi leen di sant bu baax ak waa kër Serigne Abdou Samad moom Serigne Touba te soxna Aji Mam Bousso teew nii moom tamit ni ma ko waxee sànq nga xam ne mooy kilifa jotaay bi Serigne bi nee na mi ngi lay sant di am mbégte lool ci sa teewaay bi. Serigne Abdou Latif Jenn moom tamit mi nga xam ne mooy xalif waa kër Cheikh Issa Jenn doomam sëriñ Sidi jenn dana wax ci turu dana wax ci turu délégation bi nga xam ne ñoom ñoo fi teew ginnaawu sëñ Mbacke noppi rek kon moom tamit na ko bàyyi xel kon ñu teewlu sëñ si la mi nga xam ne mooy wax ci turu sëriñ Cheikh Abdou bu Baye Cheikh Khady mi nga xam ne parrain la ci bisu tay bi sëñ Mbacke bisimilah. bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafi alanbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi sant suñ boroom subhaanahu wa taala ci xéewal gu réy jii mu ñu baaxe jaarale ko ci jaamam bu tedd bi bokk ci askan wu tedd wi di sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Modou Faati Xëri moom sëriñ ma Massamba Mbacke ñu yëkkati kàddu ci kàddu ndigal ci kàddu suñu kilifa suñu sëriñ sëriñ Abdou Mbacke moom sëriñ Cheikh Khady moom maam Thierno Birahim kon ñu jàpp ne kàddu yi bu jubee baatinu ndigal moo tax mu jub bu dëngee itam jaam bu mënta jëfee ndigal moo tax mu dëng sëñ Abdou Samad sëriñ Abdou Mbacke moom Baye Seex Xadi ak njabootu Daarul Moxti gépp ñoo ngi lay nuyu di nuyu gan ñi la wuy si ci bis bi yëpp moo xam ñi nga bokkal maam yépp la moo xam mbokki taalibe la moo xam ñi nga bokkal doxaliinu réew mi la muy ministre bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndal ginnaaw bi sëriñ Abdou bégee ci teewaay bi bég ci solos bis bi ak niñ ko dara jaale kilifaam ji ngeen bokk muy bàyyi seex nga xam ne sa cofeel rek moo tax nga def ko te léeg-léeg ñu bari di rendre homence nit waaye ba muy dund amuñ ci woon moom soxla waaye sëriñ Abdou nee na sa diggante ak bàyyi seex loolu ñi xam daaru ñëpp xam nañ fi nga ko tegoon xam nañ fi nga teg moom sëñ Abdou mii bàyyi see xadi mi nga tudde bis bi góor yàlla gu mag googu nga xam ne bu ñuy natt dëddu àdduna bu ñuy natt ak mbaax dañuy wax ne Ceerno Birahima ma jur doy na sëkk ak mbaax waaye nag bàyyi seex am jukko yoo xam ne ku nekk mën na koo jàng koo xam ne boo demee daarul Muxti fekk mu tabax jumaa jum def lu mat milliard tabaxal borom daaru kër defar armeel ya dëkk ci néegum ñax boo xam ne bire almet mën na koo jeexal kooku soxlawut àdduna mbokk yi fi toog jëmm jooju moom la sëriñ Abdou bëgg ñu fàttaliku ko sëriñ Abdou samat moo tax mu ne nañ ko ci rendre hommage ñépp a ngi daw wuti àdduna di ko di ko wutee ka jàpp Baay Seex xaddi bi suñ borom wommatalee ko àdduna ba mu teg ci ay loxoom dafa jël àdduna teg ko ci ginnaaw yu ténxam soxlawu ko bari baatin lool ba ñu jaxasoo woon ak moom ñëpp umpule wuñ baatinam bàyyi seex ñi ko diisoon seeni mbir tam dëggu ci seen xol mujj ne yàgg du wax yàlla nee na waaye boo daaneelee rek mu ne la Serigne tubaa dana ko faj te boo demee dajeeg Serigne tubaa mu fajal la say aaju loolu la yàlla dogaloon jëmm jooju la sëñ Abdou Samad bëgg ñu fàttaliku ko ki sëñ Abdou Samad bëgg ñu fàttaliku ko mooy góor ga nga xam ne ku demoon daaru fekk ko mu toog ca biir néegu ñax ba. tegale ay tànkam néew kàddu lool waaye bu waxee lam lay wax lépp ay olof lay doon waaye du génn alxuraan du génn sunna du jig tey du génn njàngalem sëriñ Touba sëñ Abdou Samad jërëjëf ci fàttali gii nga ñu indilaat ci góor gu tedd googu di bàyyi see xadi moom boroom daarul moxti mbokk yi suñ borom moo bëgg ñuy fàttaliku moo tax alquran bari lool ay waskur waskur fil kitaabi Muusa waskur fil kitaabi Isa waskur fil kitaabi Maryam waskur fil kitaabi eh, Ismaayil kon waskur yooyu yàlla doon wax di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran fonk naa ko waaye yóbbaaleel gaa yooyu géew moo tax sëñ Abdou Samad indi ngir ñu fàttaliku bàyyi si xadi te it nag yonent saa sallam nee na fu ñu fàttalikoo gaa yu baax yi suñ borom di fa wàccee ay tiyaaba sëñ Abdou Samad yàlla na sa ndam yokku ñi gëm Serigne Abdou Samad yaakaar ko daayira bi ba ñëw wuy si Serigne Abdou Mbacke Mbaye Seex Xadi nee na bég na ci bis bi njabootug borom daaru gi ne ci tànt bi yëpp bég nañ ci bis bi te buñ nee njabootug borom daaru mooy njabootug Serigne bu buñ ko waxee mooy njabootug Serigne Massamba buñ ko waxee mooy njabootug Xaadim Rasul ndax loola lépp lenn ci na ko togg Serigne Abdou nee na bég na lool fonk gi nga ko fonk doyloo gi nga ko doyloo ba doon ndawam doon jëwriñam ci dëkk bi ba fu mu mënta dem nga demal ko fa. delluwaat sa digganteeg Baye Seex ak daaru ñor la ba tax nga dara jaale ko bis bii di ko ci rendre hommage mi ngi la ciy sant bu baax yal na nga ci dajee ngërëmal Serigne Touba yal na nga ci dajee ngërëmal Serigne Touba loolu mooy kàddu yi nga xam ne moom la ñu Serigne Abdou Mbacke waxoon ne nañ ko fi jottali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yaakaar naa kàddu yi gàtt na waaye ñu bari xame nañ ci jëmm ju tedd jooju di Baye Seex Xadi yal nañ ko yàlla fayal ci barke Serigne Touba kon su ko defee ba tey tam ci kilifa yi nga xam ñoo fi teew soxna Ami bu sëñ Modou Faty Khary di doomu soxna maam say Fall sëriñ bi nee na bëgg na ci tawaay bi ndax xaritam nga kon nee na mi ngi lay sant bu baax yow mbooleem ñi nga àndal su ko defee kon dañuy woo ni ma ko waxee léegi sëriñ Sidi mi nga xam ne mooy wax ci turu waa kër Cheikh Issa Dieng mu daal di ñëw moom tamit daal di yëkkati kàddu yi waaye laata loolu maa ngi sant bu sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax ñi nga xam ni wax dëgg yàlla jàpp nañ ci bis bi bokk na ci premier ministre de muy Mouhamed Boun Abdallah Dionne nee mi ngi koy sant bu baax a baax di sant tamit ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf moom tamit ñu ngi koy sant moom tamit teew na di sant Serigne Assane Diop di ministre conseiller Matar Ba ministre des sports euh, Mankeur Ndiaye ministre des affaires étrangères di sant bu baax a baax soxna Penda Mbow moom tamit nga xam ne ministre la à l'organisation de la francophonie di sant Serigne Almami Bokum mi nga xam ne ambassadeur itinérant la ñoom ñëpp nee na nga xam ne sa tur a ngi agsi waaye ci jàpp ñëpp bu ñu sañoon kenn ku ne ñu tudd sa tur kon nag sang bi ñu ngi jégul baax ci taxawaay bi bisimilah aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wa maulana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi wa sallama tasliman mbooloo mi noo ngi leen di nuyu te leen siyaare di leen jottali kàddu yu bàyyi ci Cheikh Abdou Latif Diène xalifa maam Cheikh Issa Diène ñu ñaan yàlla yàggal ko te wéral ko kon noo ngi leen di dalal jàmm di leen siyaara di leen ndokkeel di jiital ci nuyoo bi soxna maam bu sa Mbàkke moom sëriñ Abdou Samad moom sëriñ Touba kooku ci délégation yi la bokk waaye mën nañu mooy borom bis bi ndax mook Cheikh Abdou mi woote xew wi ñoo bokk soxna benn Diène mu sëñ Issa loolu mooy ëllëg suñu taxawaay fii tey moo tax ñu di fi wax sëñ bi ne woon nu ñëw fi teewal ko fi ànd ak lenn ci njaboot gi ak taalibe yi xam ne ne bis bi bisam la bis bi bisam la ngir illa yu bari ba ci jiitu mooy soxna benn jenn mi bokkal sëñ saate meññ sëñ Abdou Samad mi loolu ku ko xamutoon na ko xame noonu ba ca toppaat diggante maam Cheikh saa jenn ak Serigne Massamba ci wetu sëñ loolu kuy ab murit te dund yoon wi xam ci dara xam nga diggante sañ Massamba ak Cheikh kon illa yooyu tax na benn bu ci ne waroon naa tax ñu teew fi ba bu ko mënaloon boppam wala aw yaramam euh, may ko ko jaral na ko ko euh, ñooy nuyu soxna maam Boussa di ko siyaare bu baax di ko dalal ànd nag rakkam soxna mooy Mbakke di nuyu tam sëriñ Asis Fall mu sëñ Moonu Moustapha Fall ndax moom it moo waroon wax fii sax ndax moonu mag te moom it moo Cheikh Abdou seen ñaari waajur yi ñoo bokk ndey ak baay muy soxna benn jenn ak soxna bintu na fekk rakkam ñuy wax sëñ Mbacke Fall doomi sëñ Mor Moussa Fall ak soxna Moussa Fall rakkam waa kër maam Cheikh Ibrahima nañu fi it lañu fi indi rek moo leen fi indi ndax benn jenn moom muy waajur sëñ Abdou Samad Cheikh Ibrahima Sarr Jasaaka moo jur waajur mu jigéen euh, man mi jiite délégation bi maay Sidi Jenn moom sëñ Abdou ànd naa ak sama rakk ñuy wax sañ falu jenn ak sëriñ Abdou Salaam Dieng ñëw tase ak sunu rakk sëriñ Mokhtar Dieng mu am fi ñaari taxawaay ngir euh, ci waa Dieng la bokk sunu rakk la nekk itam collaborateur u sëriñ Abdou Samad ci président de la République kon kooku am na fi ñaari taxawaay am na sunu doom ju wax sëñ Mourtala Dieng noo ànd ak Cheikh Basirou Dieng moom sëñ Cheikh Alim rakk. Euh, kon ñooñu ñoo composé délégation bàyyi ko njane sëñ bi ni woon dañ ñëw teewal ko fi santal ko mbooloo mi ndokkeel leen euh, gërëm leen euh, ku lim ju maa ngi nuyu itam sama xarit sama mag si Abdou Lahad mu sëñ Modou Fati xarit ndax noo bokk bis bi di nuyu itam monsieur le ministre Abdoulaye Diouf di la yóbbante tam ci président de la république di la xamal ni boo demee nee ko nun njabootu César Diène mi nga xam ne ñoo meññi waajur sëñ Abdou samat nomination bi mu ko def def ko ambassadeur itinérant ci wetam loolu rafetlu la réy ci ñun lool it te it di xamal président ni ko bu fekkonte ni nomination yi muy def ci nit ñi ci coobare boppam bu jóg ni bu Cheikh Abdou Samad lay mel dana am réussite ndax la tax muy am réussite mooy Cheikh Abdou dafa doon kilifa ci ay maamam ndax adresse dafa doy sëkk fii ci yoonu murit sëñ Massamba mu ma sëriñ Massamba Mbacké mooy sama maam doy na adresse rax ci dolli nga maamu ci yoon wi maam ju toll Cheikh Issa teg ca maam ju toll Cheikh Ibrahima kooku dafa doon nekk njiit ci ay maamam ak ci ay waajuram yëpp kon président bu fekkoon nomination bi mu def yu noonu rek lay mel kon bu soobee yàlla dana gis résultat bi te dana ko amal njariñ kon nag monsieur le ministre noo ngi lay yóbbante ci président di la wax loolu sedd na suñu xol kon noo ngi sant ñi fi teew ñëpp di leen gërëm di leen sant wasalaamaaleykum wa rahmatullah ni ñu ko waxoon léegi rek ndax ku am kër ndey tamit am nga kër baay wa salla wa sallama ala sayyidina muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin ila yawmi diin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki jullit yi bokki taalibe yi xarit yi am di jàmm yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant bu baax te di leen gërëm dem mbégte mu rëy nag ci yàlla fekkeloo gum nu fekkeloo bis bii te fekkeloo woon nu ko daaw euh, nuy ñaan yàlla sunu borom tabaraka wa mu fekkeloo waat ko ay ati at te at mu nekk nanu daxal ba jàll nekk ñëwoon naa fi daaw nag fecca si sees euh, ñëwaat leen fii ci grand théâtre waaye nag sant nanu yàlla sant sunu borom tabaraka wa ndax nit lépp lu muy yéene ci lu baax di ko tàmbali di ko def donte yoonu Sëriñ Tuubaa amul tànk ginnaaw te tànk ginnaaw sax dañ ko dul nangu duñ ko nangu benn yoon danañ fas yéene jëm kanam rek waaye sant gi ñu sant muy muy lu rëy ci suñu xol euh, dama wóor ni ku yéene mbir def ko si sees ci déwén sa nga di ko defaat ne grand laa ko yóbbu loolu moom ku ne xam na ne yokk na te lu yokk nag lu mën a doon pas-pas a koy yokk kon nag bisu sëñ Abdou Samad Mbàkke bii nekk na bis boo xam ne nii li mu yoon murit baaxoo loolu la def mooy jëm kanam ñu ngi ñaan yàlla na mu dolli ko jëme kanam ñu ngi sant nag mboolem mbokk mu fi ñëw te sëñ sama tax laa jóg ndax sëñ Abdou Samad nun mëtuñu seere ci moom ndax koy wax sa bopp naan maa nangam maa nangam loolu du ci mën a jël xalaat waaye nag seere moom du mën a ñàkk su bis amee li wér daal te wóor te ma waxoon ko fi daaw mooy àddina moom lu nit xamati xamati xamati xamati war naa xam ku ko fonk nit lu mu yëgati yëgati it war naa yëg ku ko jox cër te sëñ Abdou Samad mboole sunu nu ñuy nekk taxaw ci grand théâtre ku fi ñëw ku nekk dangaa ngaa defee ne yàgg sëñ Abdou Samad képp képp képp yéen a yëmalewul ak kenn ñun mboole sunu nun loolu lañ jàpp rawaate naa nag njabootu sëñ Modou Fati Xari Mbàkke waaye rawaate naa njabootu Cheikh Ama Samba ñëpp la am te témoignage nag looy wax boo ko gëmut kenn dugg ko gëm waaye li may wax yëg naa ne ni ma ko gëmee ne lay duggee ci xolli nit ñi mooy sëñ Abdou Samad Mbàkke as gor la ab jullit la sëñ Abdou Samad Mbàkke as euh, maanaam jàmbaar la sëñ Abdou ku yaru la ku mën a joxe cër la sëñ Abdou Samad Mbàkke ku teey la koo xam ne nii surxu surxu kenn mënu ko caa dugal loo ko mën a wax day teey ba xelam may ko mu soog a jëfandiku loolu nag kon mboolem ñi nga xam ne ñi ma koy seereel mooy ñi nga xam ne mooy taalibe yi ko sëñ Tuubaa booleel maa ngi leen de xamal ne am ngeenub sëriñ am ngeen sëriñ bu intellectuel bu am xam-xam am ngeen sëriñ bu maandu boo xam ne amul caaxaan tey lii ñuy xebe ab sëriñ it moom da ci am sa jaar mës sa jaar ci yëfi ndaw xamul bëgg lu baax ko ay ay ay magam yërëm ay rakkam joxe cër ci kum dajal ba tax na ñi ngi koy jaanal sun borom ndax wax nañu ne nit ku baax ku xam ci moom lépp wax lépp kenn gémmiñu ko nga des waaye nag lu nit waxaat yi waxaat yi su gisee nen war na nen nen a kon nag euh, monsieur le ministre euh, sëriñ Abdoulaye Diouf Sarr yow ak Arouna Coumba Ndoffène Diouf ñu ngi leen di seereel ne na ngeen nu seereel président de la république ne ko gis nu ni mu def Abdou Sa sëñ Abdou Samad ci loolu nag ci la ñu amee nun ñëpp nag waaw mboole sunu nun ñi mboole sunu kenn ku ci ne lu sëñ Abdou Samad nekk rek yaa nga ca loola waaw kon nun jullit yi dañoo war a nekk benn gannaaw loolu it bu nekkee benn it ñu jublu nag jaamu yàlla ndax jaamu yàlla kat jëriñul yàlla dara jaamu gi lay jariñ ñàkk gee jaamu nun lay wàññi nan jaamu yàlla te moytu tooñ nañu jéggalu yàlla te te fogg ndigal mi te bàyyi tere bi loolu mooy jàngale Sëriñ tubaab mooy mooy bu maam Seex Faal kon nag ñu ngi leen di nuyu di leen sant bu baax di leen soññ ci jaamu yàlla jaamu yàlla kan lañ nu yare jaamu yàlla it moom lañ xam waruñoo taxaw it fii sa ku mel ne sa yëpp samat woote fi ñu waxtaan bi te waxuñu fàttali taalibe yi ndax ñëpp solidaire solidaire la ñi fi nekk ñëpp di ay sëriñ kenn ku ci am ngay taalibe waaye ñi fi nekk ñëpp mën kenn mën naa wax ci suñu tur noonu ñëpp jaamu yàlla lañ xam ci lañ ñu yar alxuraan lañu ñu jàngal nañ jaamu yàlla te moytu tooñ te nangoo liggéey tey moytu yàq tey respecté su droit civique te droit civique it mooy tax a civilisé doomu adama bu faaliwul dara du civilisé ñi ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp mboolem ko fi teg sa tànk rek sunu xol sedd na ci yow yàlla nañ ko fi daje ay ati atat sëñ Sabat Mbàkke nag yàlla na ko yàlla sàmm te musal ko te may ko fanu gudd ci barki sëñ Tuba wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu kon su ko defee dañuy wow monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ni ngeen ko xamee su ko defee bu jëlee kàddu ba noppi nag sëñ Abdou samat dina ci teg ay kàddoom su ko defee ñu tënk cérémonie officielle ndax Abdoulaye Diouf Sarr mi moo fi teewal président de la république kon bu cérémonie bi jàllee nag ñu fàttali leen ni am na yeneen animation yoo xam ne mi ngi ci biir ak ay témoignages ci sanguy tedd yi fi nekk su ko defee bu jàllee Arona Coumba ministre Arona Coumba Ndoffène Diouf moom tamit dana fi def témoignage ginnaaw cérémonie bi ak euh, ñu fàttali leen tamit animation bi nga xam ni dina fa am ci kanam ndax wàllu zikrullah yooyu yëpp tamit dina ko fa amal ginnaaw bu cérémonie bi jàllee. kon su ko defee dañuy préparer monsieur le ministre waaye balaa loolu dañuy sàkku ci moom aussi mu remettre ñu benn kado a Serigne Abdou Samad Mbacke loolu nag dañuy leeral rek li tax ndax jotaay bii kenn ku ne xam ne ne ziar lañ ko tuddee. ziar boobu mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo bokk ci daara xaatimatu munaajaati daan ko amal at mu jot buñ tewee ci kanamu sëriñ bi jël seen i kado ak seen i yi di ko jox ñu dem ba jotaay boobu yaatu ñu woo ci mbokk yeeg xarit yi kenn ku ne gis na daaw ñu ngi ko defee si ses mu réussir lool ren ñu indi ko grand ñëpp wuy suñu kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab bis bi moo waral mboolem fédération bi nga xam ne mooy daara xaatimatu munaajaati nag def benn acte bu symbolique muy jël kado boo xam ne dañ koy jëbal sëriñ bi mu doon suñu addiya ci bis bi loolu nag ni ma ko tuddee sànq lu symbolique lay doon kon su ko defee dañuy prier monsieur le ministre mu remettre cadeau bi euh, au responsable moral de la fédération qui a organisé ce ziara kon sëñ moon Ndiaye xewal su ko defee mën nga ñëw indaale cadeau yi jox ministre bi mu daal koy remettre sëriñ Abdou Samad. laa ilaaha laa ilaha illallah xamal nga ni sëñ Tuubaa dana la fekk fii de ak bëgg lu baax ak bëgg ay bokkam ak fonk taalibe wax leen jërëjëf sëriñ Tuubaa jërëjëf sëriñ Tuubaa bismillahi rahmaani ñu ngi sant suñu borom di julli si sangu sangu yi Seydina Muhammad di nuyu bu baax nuyu bu tedd ku tedd ga tubaa Touba xalif général des Mourides Cheikh Ahmed Lay na fi yàgg te wér te yàgg ñu ñaanal yàgg ñu gunge di wax ne bésu tey bi pour ñun bés bu mag la sëñ bi ñuy nuyu njabootu sëñ tubaa gi fi teew yépp di leen uh, wax ne ñu ngi feddali suñu taalibe di sàkku ñaan si ñoom tey délégation bu mag moo fi ñëw fekke bésu ziar bi bés boo xamante ne wax nañ ko sànq amul tànku gannaaw tànku kanam rek la am parce que ñun ñii ñu ngi suivre ni muy évoluer ba tey fii ci Grand Théâtre ñu ñëw ànd ak délégation boo xamante ne jarul ma koy limaat parce que lim nañ ko léegi ñu sës rëkk ci président de la république ñoo ñëw teew bésu suñu xarit suñu doomu ndey suñu sëriñ koo xamante ne moom tam kenn la ci président muy seen sëriñ sëñ Abdou Samad muy personnellement sama xarit li ngeen ci wax sànq am na man mii day mën naa seede ne am ngeen sëriñ dëgg te fu wér laa ko teg ku baax la ku ñuy guide la kuy xelal président de la république la bon nag sëñ bi ñu ngi lay nuyu président moo ñu yebal ci yow nañu ziar la te bi ñu ñëwee lañu fekk fële ci hall bi déjà dalal na suñu xel exposition bu rafet boo xamante ne tout tànk yi la ñu njëkk wan ñu li ngeen ci liggéey li ngeen di liggéey ci métier yi ba ci kaw li ngeen di liggéey ci formation yi bon dëgg du daje rek fii ci salle bi mais li si ci yi wane ne déjà li ngeen di def ci terrain bi président donc nee ne mi ngi leen di ziar bu baax mais surtout du sàkku ñaan di leen ñaan ci seen barke maam ngeen ñaanal ko mébét bi xamante ne am na ko ci Sénégal yàlla jàppale ko ba mu yeggali ko ba mu matal ko jarul ma ci euh, dellu parce que xam ngeen ko li ngeen wane fële ci hall bi ci exposition àndan ak moom méngoo na ak li mu bëgg pour Sénégal mooy jàpp Sénégal tout tànk yi ba ci kaw pour que émergence am fi Sénégal nekk na dëkk boo xamante ne président de la république dafa ko bëgg a jëmee fu sore moo tax mu jël ñu mel ni sëriñ bii teg leen ci booram magam ju tedd ji wax sànq li mu wax dal na xel wax na moom fa mu bokkoon wax na li ko sëriñ bi convaincre ba mu ñëw taxaw ànd ak président de la république yaakaar naa nag kilifa gu mel noonu bu waxee lu mel nii loolu dal na xel wane na ne yoon bi ñu jëm yoon bu leer la yoon la boo xamante ne bu leerul woon seen kilifa gi du si ànd bon nag sëñ bi président de la république lay nuyu bu baax di la wax nga ñaanal ko jarul may dellu ndëkk si li nga séq ak moom parce que xam nga ko ñun ñu ànd ak yéen aussi xam nañ li nga séq ak moom ak place bi xamante ne moom nga occupé si booru président de la république loolu daal laa ne woon danaa ko si wax di wax ne lépp loo xamante ne rek nekk na lu si dëng si man mu matandi bii la mais président de la république lu rafet ak lu taaru rek la ma dénkoon pour que ma ñëw jottali ko ku tedd gi si seen kanam maa ngi leen di remercier bu baax wasalaam. Euh, jërëjëf monsieur bi ñoo ngi rafetlu délégation. la maire Pape Diop jóge ci commune Thiès Est indi fi délégation bu rëy boo xam ne Basir Bokum moo ko jiite ak Dame Thiam ak Maguey Niang léegi nag xam ngeen ni événement bu toll nii du jàll mukk te tuddunu sa jàmbaar ji sañ Basir Mbàkke moom seen du xaadar porte parole régional des Mourides ba sànq Mbàkke bu fu nekkoon kii lu fu jiitu mi ngi jokkoo ko yow waaye yéen ñaar réeroowu leen waaye nag sëñ bi yow laa jox kàddu gi Mbàkke ni nga def sa taalibe yii ku seetaan fan yi émission yi ak télévision yi ci xam-xam ci jaamu yàlla ci tegu ci yoon xam ne yaa ngi liggéey sa maam Cheikh Cheikh Serigne Touba ak Cheikh kon nag yow laa jox kàddu gi yaa hayya xayoo salli bi salaam def ñu ma gën alal la ci بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل فالكلام من على خاريس الحروف بما يفوق سمن من محروف لناجم الحروف خالد ربا يا من كفى وسع الخرور والنبا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 سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين المخلصين ومن اهتدى واسترشد برشدهم إلى يوم الدين mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw bu ni sàbbaale sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati suñu loxo ca kaw ci lu amul benn complex di wax jërëjëfa sëriñ Touba jërëjëfa sëriñ Touba jërëjëfa xaadimu rasulillahi sëriñ Touba mbokk yi bés bi taxawal ko ñu ne lu ngeen ci jub lu ñu ne ziyaare ci sëriñ Abdou Samad doy na ma sëkk waaye nag su ngeen ñëwee jóge fu ne ak seen alal ak seen coono lu ngeen man ak lu ngeen mënut wax dëgg yàlla faw ma jóg taxaw ne la jërë ngeen jëf kon sama jërë ngeen jëf ci yéen ak seen jërëgeen jëf ci man nan ko boole def ko benn mooy jërëjëf sëriñ Touba mbokk yi nun jullit rawatina nun ñi ñuy tudde ay murit yàlla muy dogal dogal na la ubaydu rabbihi wa ibnu cheikhihi sëriñ Abdul daan wax bu yox ci sëriñ tubaab ba dënam tàng danaan noon murit bun dee ay gor waaye cey bun dee ay gor ñu war a fàttali ko kenn képp muy xadimu rasulillahi sëriñ Touba. sëriñ tubaab moomu nag laa wax ne yemutoon kese ci li tubaab di wax rituel ku mën a jàng la ku mën a wérd la ku ñeme der bi la dëgg la waaye nag daf caa boole woon bu ko jaree mu jël ay décision yoo xam ne nii dama koy faral di décrire ci arab comme li arab di wax at ci sa sabili al aqida mooy volontaire ci loo xam ne boo ci deewoon ay million nit danañ dund sa gannaaw ngir dee gi nga deewoon ci bis boobu loolu moo waraloon mu julli ca kaw géej ga wóoru ko woon ne buy julli ndax dana fa des wala du fa des waaye bu fa desee mu des fa ngir yàlla mi ko jaral yàlla nag boo ko joxee lépp dalay dolloo lépp moo tax mu sëgg ca ndox ma jëba taq suuf di suufu suufus njaareem kon jërëjëf sëriñ Touba. kon nun murit bu ñu demee ba àdduna toll fi mu toll crise de personnalité et de référence am kenn xamatut fooy teg sa tànk bu nu bëggee sowewu bu ñu bëggee mucc dañuy delloo suñu xel ci kenn képp muy sëriñ Touba dañuy delloo sunu ngor ci delloo ko war ma ji war ci moom te delloo ko sutura si war ci moom te delloo ko ngëm gin ko war a gëm moom xaadimu rasulillahi suñ ko defee lu nu dugg rekk mu yomb suñu defee na sëriñ Moussa Ka waxoon nekk ca ñal sa ne xiim xamuñu kuy sëriñ Touba lu ñu dugg rek mu jafe kon murit kon sénégalais kon jullit nañu dellu ci kepp kenn kepp muy sëriñ Touba xaadimu rasuulillaahi maam ñaari question yoo xam ne dama leen ko bëgg a tuddal nga xam ne ni lu ñu mën a réfléchir la lu ñu mën a xalaate la lu ñu mën a xoole li war ci ñun te amaana def nañ ko amaana defagunu ko muy point yi nga xam ne ni histoire dañu koy laaj ñaari point ñetti point ba ñeenti point nun ban tontu lañu mën a am ci ñi nga xam ne dañu waxoon ne xeet woo gis dañoo soxla drogue te population bi opium seen opium mooy diine la religion et l'opium du peuple benn boroom xam xam-xama ko waxoon nun ban tontu lañu ñu pour tontoo ko kooku ñi nga xam ne dañoo waxoon ne islaam du du prôner le développement islam diiney rituel la nun jullit en tant que boroomi xel ñu am émancipateur bu mel ne Serigne Touba nun ban réponse lañ am ci loolu ban tontu lañu am ak fi àdduna bi toll ci insécurité tontu ko ñi nga xam ne ñooy wax ne l'islam diine ju am dangar la diine ju dangere la diine ju yàq la nun jullit ñu conscient ñun jullit ñu ànd ak suñu xel yan tontu lañu ñu mën a am jox ko ñooñu tubaab yi sax dañuy egg bay wax ne ñoom waxoon nañ ci nekkuk sëriñ Touba ne muridismu jaaxal na leen phénomène la waaye gannaaw Serigne Touba dafay fay nun murit ban tontu lañ am ci loolu ban tontu lañ am ci ñi waxoon ne humanité humanité moom rekk mooy société organisée ma ne leen déedéet xorondoom sax yamb sax mellentaan sax société organisée la mais société organisée bu buy développé nag mooy insania mooy nit naka la ñuy fexee ba distinguer suñu bopp ñu mën a wuute ak aw yamb wala aw mbóot wala aw mellentaan ndax ay société yu ñu organiser lañ waaye nag boo ca boolee xel mu mel ni xelum nit mu mën a prôner le développement nekk société organisée bu développé kon mbokk yi loolu mooy point yi nga xam ne aaday ziyaar bi dafa bëgg ñu jël benn thème boroom xam-xam yi fi nekk bu cérémonie officielle bi jeexee ñu waxtaan ci loolu point yooyu laa leen sànni comme question ñu fas yéene ci waxtaanee. ma bëgg nag nun murit ñu xam ne bu fekkente ne bëgg nañoo réussir loolu am tontu boobu ni jullit yi gën a bare ci Sénégal ci ñu dut jullit noonu la sufi gën a bare ci senegal ci ñi nekkut suuf yi mais lan mooy suuf yi est-ce que suuf yi ba Serigne Touba tegoon ak bi ñuy doxal benn la est-ce que Serigne Touba ma fa Touba ñu koy ziyaare ak sëriñ Touba bu ma ko mënee wax entre guillemets pacotille bi nekk ci Ndakaaru ndax benn la lan ñooy musal moo nuy musal ba amalgam du am du ñu jaawaat le Serigne Touba vrai ak sëriñ Touba taille sur mesure bi am ci ndakaaru ak banlieue sama mbokki taalibe yi sëriñ bi waxoon na ne xaadimu rasulillahi ca xuqal bu kaawu ba muy yàpp murit bi door a jóg nu mu war a mel lu mu war a gànjaroo nu mu war a préparé boppam bokk na ca min ha tabaxuru fi ilmi shariati ma ilmi alxaqiqati min qabli riyaadati léegi da gis ku tëb rek njëkkante der ba dugg xalwatu di wut jinne wala rab nee na danga war a géeju ci xam-xamu sharia ak xam-xamu xaqiqa ndax tànk yooya nun bu ñu questionné suñu bopp ndax ña nga ca nee na minha tawaqufu an qawlin wa an amalin xata ra'ahu saxiixan bi shahaadaati lépp lu mën a ñëw moo xam ci internet la jóge moo xam fu mën a jógee ak lu luñ la ko baaxal baaxal nga yor sam xel càmbar ko ba gis réalité ba xam dëgg ga nga door a décider murit fëkk du ko yóbbaale minha talaazum dikrullahi malikihim xaalul bidayaati ma xaalu nihayaati koo xam ne nii daal bun la gisee ak bun la gisut yaa ngi sikkar baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi nee na bokk na ci màndarga yi mutasawif mbokk yi point yooyu yëpp ak yudut moom lay bàyyeeg boroom xam-xam yi après cérémonie officielle bi ñu toog waxtaane ko aouzu billahi min alsheytaani bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa asxaabihi altayibiin almuxlasin wa man ihtada wastarshada birushdihim ila yawmi ddin mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw bu ni sàbbaale sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi yëkkati sunu loxo ca kaw ci lu amul benn complex di wax jërëjëf Sëriñ Tuuba jërëjëf Sëriñ Tuuba jërëjëf xaadimu rasulillahi sëriñ Tuba mbokk yi bés bi taxawal ko ñu ne lu ngeen ci jublu ñu ne ziyaare ci sëriñ Abdou Samad doy na ma sëkk waaye nag su ngeen ñëwee jóge fu ne ak seen alal ak seen coono lu ngeen man ak lu ngeen mënut wax dëgg yàlla faw ma jóg taxaw ne la jërë ngeen jëf kon sama jërë ngeen jëf ci yéen ak seen jërë ngeen jëf ci man nan ko boole def ko benn mooy jërëjëfa sëriñ Tuubaa mbokk yi nun jullit rawatina nun ñi ñuy tudde ay murit yàlla muy dogal dogal na la ubaydu rabbihi wa ibni cheikhihi sëriñ abdul ahad daan wax bu wax ci sëriñ Touba ba dënam tàng danaa noon murit bun dee ay gor waaye cey bun dee ay gor ñu war a fàttali ko kenn képp muy xadimu rasulillahi sëriñ Touba. sëriñ Touba moomu nag laa wax ne yemutoon kese ci li tubaab di wax rituel ku mën a jàng la ku mën a wérd la ku ñeme der bi la dëgg la waaye nag daf caa boole woon bu ko jaree mu jël ay décision yoo xam ne nii dama koy faral di dëkk décrire ci arab comme li arab di wax at tadxiyatu fi sabili al aqida mooy volontaire ci loo xam ne boo ci deewoon ay millions nit danañ dund sa gannaaw ngir dee gi nga deewoon ci bis boobu loolu moo waraloon mu julli ca kaw géej ga wóoru ko woon ne buy julli ndax dana fa des wala du fa des waaye bu fa desee mu des fa ngir yàlla mi ko jaral yàlla nag boo ko joxee lépp dalay dolloo lépp moo tax mu sëgg ca ndox ma jëba taq suuf di suufu si njaareem kon jërëjëfa sëriñ Touba. kon nun murit bu ñu demee ba àdduna toll fi mu toll crise de personnalité et de référence am kenn xamatut fooy teg sa tànk bu nu bëggee sowewu bu ñu bëggee mucc dañuy delloo sunu xel ci kenn képp muy sëriñ Touba dañuy delloo sunu ngor ci delloo ko war ma ji war ci moom ci delloo ko sutura si war ci moom te delloo ko ngëm gin ko war a gëm moom xaadimu rasulillahi suñ ko defee lu nu dugg rekk mu yomb suñu defee na sëriñ Moussa Ka waxoon nekk ca ñàll sa ne xiim xamuñu kuy sëriñ Touba. lu ñu dugg rekk mu jafe kon murit kon sénégalais kon jullit nañu dellu ci kepp kenn kepp muy sëriñ Tuuba xaadimu rasuulillaahi maam ñaari question yoo xam ne dama leen ko bëgg a tuddal nga xam ne ni lu ñu mën a réfléchir la lu ñu mën a xalaate la lu ñu mën a xoole li war ci ñun te amaana def nañ ko amaana defagunu ko muy point yi nga xam ne ni histoire dañu koy laaj ñaari point ñetti point ba ñeenti point nun ban tontu lañu mën a am ci ñi nga xam ne dañu waxoon ne xeet woo gis dañoo soxla drogue te population bi opium seen opium mooy diine

ban tontu lañu am ak fi àdduna bi toll ci insécurité tontu ko ñi nga xam ne ñooy wax ne lislaam diine ju am dangar la diine ju dangere la diine ju yàq la nun jullit ñu conscient ñun jullit ñu ànd ak suñu xel yan tontu lañu mën a am jox ko ñooñu tubaab yi sax dañuy egg bay wax ne ñoom waxoon nañ ci nekkuk sëriñ Touba ne mouridisme jaaxal na leen phénomène la waaye gannaaw sëriñ Touba dafay fay nun murid ban tontu lañu am ci loolu ban tontu lañ am ci ñi waxoon ne humanité humanité moom rekk mooy société organisée ma ne leen déedéet xorondoom sax yamb sax mellentaan sax société organisée la mais société organisée bu buy développé nag mooy insania mooy nit naka la ñuy fexee ba distinguer suñu bopp ñu mën a wuute ak aw yamb wala aw mbóot wala aw mellentaan ndax ay société yu ñu organisé lañ waaye nag boo ca boolee xel mu mel ne xelum nit mu mën a prôner la développement nekk société organisée bu développé kon mbokk yi loolu mooy point yi nga xam ne aaday ziyaar bi dafa bëgg ñu jël benn thème boroom xam-xam yi fi nekk bu cérémonie officielle bi jeexee ñu waxtaan ci loolu point yooyu laa leen sànni comme question ñu fas yéene cee waxtaanee ma bëgg nag nun murit ñu xam ne bu fekkente ne bëgg nañoo réussir loolu am tontu boobu ni jullit yi gën a bare ci senegaal ci ñu dut jullit noonu la suufi gën a bare ci senegaal ci ñi nekkut suufi mais lan mooy suufi yi est-ce que suufi yi ba Sëriñ Tuubaa tegoon ak bi ñuy doxal benn la est-ce que Sëriñ Tuubaa ma fa Tuubaa ñu koy ziyaare ak Sëriñ Tuubaa bu ma ko mënee wax entre guillemets pacotille bi nekk ci Ndakaaru ndax benn la lan ñooy mus moo nuy musal ba amal amalgam du am duñu jaawatle sëriñ Serigne Touba vrai ak sëriñ Touba taille sur mesure bi am ci ndakaaru ak banlieue sama mbokki taalibe yi sëriñ bi waxoon na ne xaadimu rasulillahi ca xuqal bu kaawu ba muy yàpp murit bi door a jóg nu mu war a mel lu mu war a gànjaroo nu mu war a préparer boppam bokk na ca منها التبحر في علم الشريعة مع علم الحقيقة من قبل رياضتي léegi da ngay gis ku tëb rek njëkkante der ba dugg xalwatu di wut jinne wala rab nee na da nga war a géeju ci xam-xamu sharia ak xam-xamu xaqiqa ndax tànk yooya nun bu ñu questionné suñu bopp ndax ña nga ca nee na minha tawaqufu an qawlin wa an amalin xataa raahu saxiixan bi shahaadaati lépp lu mën a ñëw moo xam ci internet la jógee moo xam fu mën a jógee ak lu luñ la ko baaxal baaxal nga yor sam xel càmbar ko ba gis réalité ba xam dëgg ga nga door a décider murit fëkk du ko yóbbaale minha talaazum dikrullahi malikihim xaalul bidaayaati ma xaalu nihayaati koo xam ne nii daal bun la gisee ak bun la gisut yaa ngi sikkar baatu laa ilaha illallah muhammadu rasulullahi nee na bokk na ci màndarga yi mutasawif mbokk yi point yooyu yëpp ak yudut moom laay bàyyeek boroom xam-xam yi après cérémonie officielle bi ñu toog waxtaane ko pour tëj kàddu gi cant yi nga xam ne jëwriñ cant na ko fii yëpp maa ko bëggoon a wax ci sama làmmiñ ndax ay teraanga yuñ ma defal la ay ndimmal yuñ ma defal la ay jàppale yuñ ma jàppale la ci bis bi kon lu fi jëwriñ yëkkati ci kàddoom maa ko fi yëkkati mu am benn kàddu nag benn cant nag boo xam ne maa ko bëgg a defal sama bopp teg ko ci loxol ministre juuf Sarr mii fi teew yéen nag am na lu ngeen xam ci man mooy ak kum man di doon du ma wax lu ma gëmut waaye su ma demee ba wax jaadoot ragaluma ku ma ŋàññ li ma war a wax danaa ko wax Abdoulaye Diouf waxal ma président de la république ne ko maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm mbooloo mi du mbooloom politique mbooloom Serigne Touba la yéen a fa nekkoon daaw turam sax tudduma ko bu ma ko tuddee sant ko lu wér laa gis loo xam ne nii li wolof yu di wax ku dem ba gis nen nag ne nen a ngi nii bu ngeen ko jàppalee tuuti projet yi mu teg bu jógee ku mosoon a wax naka su dul noonu ci moom danga ne ay la yéwén te wolof nee na ay nag du mos a yéwén Abdoulaye Nel président maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm maa ngi feddali sama fidélité ci équipe bi yàlla na leen ci yàlla defal ndam ci barkeb Sëriñ Tuubaa li ma ci mën a wax lépp nag duma ko wax damay continuer ni ma daan observer di xool te li ma gisagoon doy na sama xel lool kon ministre yi nga àndal maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal te foofu nag laa gën a mane danaa dogu ci sëriñ Touba li mu bëgg dana ko am ci barke kenn sëñ di Maxtaar Mbàkke mi fi nekkal sëriñ Touba ñañ fi sant ñëpp maa leen sant waaye dafa am koo xam ne bàyyi leen may leen ma mu tuddal ko sama bopp muy sëriñ Basiiru moom sëriñ Abdul Xaadar biig ci guddi la génn réew mi waaye ba ci avion bi mi ngi wax ak man ma ne ko mbakke demal fii ma toog yow laa fi toogal sëriñ naa mii toog sama ginnaaw yow la fi toogal aji Mambusa mii ak njaboot gi yow lañ fi toogal mbakke demal kon sëriñ Basiru yàlla na ko fi yàlla yàggal te yàlla na am ndam nag ci liggéey bi muy liggéeyal sëriñ Touba. sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke mi nga xam ne nii nag moo jiite yoon wi te mat ko sëkk yàlla na ko fi yàlla saxal fu mu bëgg eggale yoon wi yàlla na ko fa eggale lépp lu ma waxut mënumaa wax lépp conférence ma dama doon jéem a def tapage ba borom xam-xam yi mën a wax gannaaw événement bi kon dañuy arrêté fii ndax. ministre bi dafa am ay obligation yoo xam ni fokk moom mu jóg bu jógee nag danañ continuer ay kàngam ci yoonu Serigne Touba ay taalibe Serigne Touba yu mag ay kilifa ay intellectuel ñu continuer débat bi ba ci kanam ñu jox Baay Faal yi ñu terminer soirée bi lu ci jubut nag pression beeg suspense moo rëy waaye lu ci jub nag Serigne Sidi Mokhtar Mbacké la yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf Serigne Touba.